encore que sax rôle Ousmane Sonko ci état bi même ma ma répété toujours même bu ko président Bassirou Diomaye Faye may loolu du yoon ci bëri yoo xam ne da koy def comprendre nga parce que fii ki ñu nommé président de la république c' est Bassirou Diomaye un premier ministre mënul marcher sur ses plates-bandes constitutionnelles du noonu am na loo xam ne nii ci wax ak ci lépp du jëm ci définir la politique de la nation ak yenn décision majeures yi loolu ça incombe au président de la république mosoon naa dégg nag ci conseil des ministres bi ñuy doog a falu ñooy dañuy xool lu ñuy renforcer pouvoir du premier ministre mais man defe naa ba tey en Fabrice gisaguma ñu def ko mm-hmm. donc tey fii régime présidentiel la ñu nekk ki yore doole gi euh, Bassirou Diomaye Faye la donc mënuñu comprendre yenn saay le premier mel ni kuy substitué wu au président de la république loolu benn niveau d' entorse la mm-hmm. léegi fii lan mooy le problème ah léegi ñu ne leen fausse nouvelle Ousmane Sonko taxaw ne Far Far Limited bi nga daan dégg gis na pétrole Sénégal depuis l'an 2000 Ousmane Sonko ko wax de depuis l'an 2000 Far gis na pétrole te bi mu koy gis Macky moo jiite mooy directeur banque de données bu Petrosen la wax. bi ñu découvrir pétrole ba pare yaa bi dégg sa Macky nekk directeur général bu Petrosen. Mm-hmm. loolu kon du fausse nouvelle. après suñu naataangoo yi nekk Africa Check nga xam ne dañuy def fact checking mooy boo waxee lu dul dëgg ñoom dañu lay avec des arguments ñu weddi ko wan ko loolu mosul am pétrole mosuñ ko découvrir en 2000 phare Dimitri mosu ko découvrir en 2000 Ousmane Sonko demul ba si yàgg mais 10 pour cent Africa Check boobu defaat fact checking weddi ko loolu amut 10 pour cent bi amuñ ko. junjul lu mel ni bande pétrole yi depuis atum 2016 mi ngi tege fay. Mhm. mel ni pétrole bi mi ngi ball ñu koy jël di génne réew mi. loolu mosul am. affaire Mame Mbaye Niang toppuñ ko léegi li may wax nii rek mooy yoo xam ne toppuñ ko ci après. mais dañoo bàyyi rek mu joxe opinion parce que moi je me suis dit que un journaliste un homme politique kuy wax loo xam ne amul tu te discrédites man su ma amee adversaire boo xam ne li muy wax amul. mais il m'arrange parce que na boppam. dafay mel ni waxam jël tu dóoree say doom mais toppuñ ko ci ah. Mm-hmm. parce que loolu dafay am souvent polémique bu bees la. ay dañoo sous-estimé xaw ma ay fi loo xam ne gan la fi. amoon na fi ci atum deux mille kii nu mu tuddati mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. diggante Sénégal ak FMI ku nekk joxe ay chiffres. Mm-hmm. après amoon na fi ay werante tam diggante direction de la prévision et des études économiques. ak agence nationale de la statistique et de et de la démographie xam nga fii lan moo am. foofu na junj na ko léegi. dañoo jëm élection ñii lu ne dig nañ ko askan bi. yaa ngi dégg est que. comme ni na les politiques ils nous promettent des ponts même là où il n'y a pas de rivière. dégg nga. xam nga boo fekkee ab jànq koy labat. lu leen nga dikk ko may doomu jiili mbay may doomu juga kaba ay mal takkee di nga am or dinga am jamaa lu leen nga dikk ko ko nga takk ko ba pare ne ko yoroo sax suukar màdd mais sëy bi du mën a neex déedéet yoroo sax lu suukar màdd sëy bi du mën a neex déedéet a neex ana projet ba keroog fu ñu doon xaar Ousmane Sonko ah. mooy projet bi nga ñu doon wax Ousmane ay waay ana projet ba ana solution ya mu ne état en ruine mu ne ko solution en ruine soori war a paayiti solution en moo fi am léegi nag il faut les comprendre jekkul lay rafet jëfin moo ko gën il faut ñu am lay léegi il faut ñu am ay alibi jéemoon napp gars yi arrêté nappaate bi mënu fi dem Ousmane Sonko yow yaa mujj xeex Sénégal bi nit ñi di xeex ñu leen di jàpp kenn xamula ci xeex il a fallu que ñu arrêté taay bu njaay pour ñu gis la ngay commencé di xeex loo xam ne nii intérêt di défendre loo xam ne nii peut-être mën nañu ko méngale ak intérêt général bi ngay nekk syndicaliste sax li mooy intérêt matériel et moral des travailleurs na leer général des populations léegi il faut nga am conscience ne bu fekkee ne dictature nga fiy jéem Senghor jéem na ko mënu ci dara ba door ak booloo jeex dafa ko tegaat ci suuf ak ko fi mujj toog parce que les démocrates vont faire face ñu ngi ñëpp on a consenti beaucoup de sacrifices yoo xam ne sac yow concentré ko ci jamono yooyu noonu donc du ñu bàyyi fii kenn dafa teg dictature mm-hmm. lu mu leen jaral lu di leen ci jaral parce que calpe lu mu jaral addu calpe lu ko raw dina ko jaral borom calpe ba calpe du dem. effectivement alors. mais mais yoonu euh, kii kii kii Ibra italien. Euh, pardon kii euh, euh, Ousmane Sonko. waaw waaw waaw waaw waaw. non moom moo wax. ah, ah tontu. non non dama doon laajte rek. waaw moom moo wax bugaan tontu li mu wax Ousmane Sonko. Hmm. Hmm. man du ma économiste du ma expert. je suis prédisposé à expectative prudente. mais yemul maanaam ku nekk xam nga ne comptabilité double entrée la actif passif. débit entre débit débit crédit. Hmm. xaalis bu mu dugg dañ koy retracé. yaa ngi dégg lépp ci autant ci bënul foqul nga ne ñu lekk nekk nee na mintañ il faut ñu xool nu mu demee lii kese la on pose des questions dëgg la léegi am na ñoo xam ne ils ont les habilitations scientifiques intellectuelles ñu mel ne ay docteur Pape Demba mhm. am na ay leeral yu ñu ci def yu bëree bëri bëri et puis kii plus et kooku ancien directeur service la ay banque mondiale ak yooyu bese yaaw mhm. fii mun fi dugal xaalis boo xam ne gisu ko ki nekkoon seen wet keroog ancien kilifa la ci bese yaaw du noonu mhm. donc toute chose qu'il faut et puis c'est Ousmane Sonko xam ci moom 46 milliards yi mu ñu waxoon ne versé nañ ko ci 94 milliards Ousmane ban compte la dugg ñu ngi xaar boobu ba tey Cheikh Yérim ñu jàpp ko moom tam parce que du bëggaan rek bon xam moo def wala deful mais xam nga fu ma doon xaar Ousmane ci affaire coowal Adji Sarr bi amee ba pare am na livre bu Cheikh Yérim bind am lu mu tudd Ousmane Sonko ci corniche bii nii Ousmane nee woon dafay porter plainte Cheikh Yérim may xaar plainte boobu fan lay fan fan ba tey vous xam nga li xew ci réew mi mooy li may wax toujours bukki bu dabee waxambaane ci doxin ba la Macky Sall a pu a donné l'impression de réduire l'opposition à sa plus simple expression la nature ayant horreur du vide Ousmane Sonko s'est engouffré dans cette brette mais faut pas que par cette posture qu'on puisse induire yaa may dégg une sorte de manipulation parce que cel li mag du ay nelawam te askan <laughs> tard dina voilà ñu koy def quel que soit alpha guerre mondiale sax fuñ mujje ci waxtaan mhm. autour d'une table trouver solution mhm. donc loolu sénégalais yëpp ñoom en dinañ ci gagné bu fekkoon loolu euh, nangu nañ ko mais malheureusement fii ñu toll nii mhm. dialogue yàgg nañu ko woote ñii ne duñu dem ñii ne dañuy dem ku si nekk foo teg sa tànk nag dialogue mënta ñàkk bu fekkee bu fekkee euh, bëgg nañu jàmm ci mim réew mais xam nga lan lañ dul mm, d'accord fii ci réew mi mm. damay wax te kenn du tontu wala damay teg samay mbir amoo droit contredire mm-hmm. pensée unique mm-hmm. loolu moom dañ ko xeex ci mim réew ba ba fu mu nekk génn na ci bopp mm-hmm. nit ñi soit da mën a jàpp ñëpp tëj kaso yow nga des wala nga bàyyi nit ñi wax seen xalaat parce que nag dama yaakaar ne même état buy diriger li ko gën a euh, euh, peut-être mën a gunge ci li mu bëgg. moo di mu bàyyi nit ñi wax seen xalaat mu xam fan mooy metti loolu mooy démocratie. mu mën a trouver solution sa fan muy metti mm-hmm. mais bu fekkee da nga bëgg ñu naan laan tey Yacine yow yaa rafet yaa jekk eh, eh, eh, yaa joxe xaalis. yow rek yaa gën. yaaram ka laa loo wax ñu ne loolu la mais yow doo xam yow yow exactement lan lan lan mooy say problème. dëgg la. doo xam lu lay metti dëgg la doo xam sa jàngoro. donc il faut nit ñi di la wax ne Yacine kat la prochaine fois nga xam ne kat. lii boo ko corrigé dana dana ja nga gën a mën a defaru mais chaque jour ñu naan laan yaa gën mhm. yaa fi ne yaa baax yow loo bëgg lool la boo wax fekkee li nga wax du noonu sax loolu la yow bëgg rek mais kañ surtout seen réew moo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal goo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal goo xam ne yow bu ñu la tegee si bopp teguñu la si bopp bi ndax yow dafa am foo bokk mais dañ la fi teg parce que yow ñëpp nga war a jaboote mhm. kilifa day xam ne yow ñëpp nga jaboote boo jabootee ñëpp warul am xàjjax seen parce que xaajax seen bu amee rek jàppal na yaa jax si sa kër. donc si ab kër kilifa ga bu amee na muy taxawee maanaam ñii laay àndal du ma àndax ñii kër ga bu jaxasoo rek yow la. dëgg la problème bu si am yow amaana nag bu fekkee danga nga boole ñëpp def leen benn. yaakaar naa ne kon yow di nga dox si au moins loo xam ne mën na suqali réew mi. je rappelle que en attendant Mame Mbaye di rejoindre beneen mm. plateau la revue des titres Fabrice peut-être en attendant que Fabrice euh, Mame Mbaye rejoigne nga am ay kaddu peut-être yoo si sànni. je rappelle euh, que dinañ def benn édition spéciale juste après la matinale. ah defuñu revue. d'accord pas de souci ba tey rek dama yaakaaroon ne ñu ngi ci taaw bi mais comme que mënuñu def. Euh, c'est assez bizarre on parle de charge de diffamation et d'injure abandonnée ma kon jeex na. bu jeexee rek jeex na. wala gars <laughs> euh, euh, euh, indi ceebu jën. ceebu mu ne ko noonu lii du mbëng-mbëng affaire <laughs> wu wala wàngu wàngu bon finalement c'est ça. Mm. alors maintenant les nouveaux cas la nouvelle situation diffusion de fausses nouvelles. Mm. mais quand qu'est-ce qui s'est passé entre temps. mooy laaj bi wala dafa am vidéo wala ñu vidéo am na. ah ah mais quand même. il faut bien revoir les choses. de toutes les façons la suite euh, des événements on saura. ah c'est ce qui est le plus important mais normalement waruñu agsi ba fii. c'est ça. parce que lii amul dara. y a rien. Ah, waaw allez Bambey moo gën a ci xibaar yi. alors di jégalu ci yéene kaay bi. peut-être gaa ñi waxtaan bi moo leen yóbbu. Uh-huh. ba du ñu ma a def euh, revue des titres euh, donc ñu ngay jégalu bu baax la gën a fës si bii la jotaayu euh, xibaar moo di Bougane Gueye Dany ma ñu placé ci position garde à vue gannaaw nag ba mu sekkee waxtaan enquêteurs yi ca division spéciale cybersécurité leader bu gëm sa bopp le jàmbaar la nu kaa toppee nee diffusion de fausses nouvelles yeneen ñaari charges yi nga xam ne tegoon nañu ko ci libération dañu ko mujjee teggi bu ñu sukkandikoo ci ab avocat am daañ dikkaat bi la jotaay xibaar yenn ci ay convocation yi nga xam ne ñu ngi koy jox mu sakkan lool askan wi nañu ko gisee ak yenn ci ay réaction rawatina ci waay politique yi daañ waxtaan it ñeent fukk ci ay agent yu ministère de l'énergie ak pétrole miin ñoom ci boppam ñàkk nañu seenum xëy daaj bu ministère ba ci boppam moo leen jébbal euh, kayit bay firnde ne kon euh, contrat ba dagg nañu ko euh, en tout cas tënku nañu si ab collectif doon becc seen boolu jàmbat ubbi teg l'école gi gi jàngalekat yi tey ji daanaka la ñuy dellu sa uh, classe ya démb fii ci doon Ndakaaru ndajem CRD la ñu woote uh, ngir nag uh, def ak taxaw seetlu ci wàccaay ubbiteeg l'école bi gouverneur ba ci boppam la mu xamle moo di lu toll si téeméer juróom fukk juróom-ñaar ci ay bërëb yu nga xam ne ndox maa nga fa tàggatéem ba ba léegi kon nag njàng mi dana fa xala yéeme waaye jël nañu seen i matukaay tàggat yaram Aliou Cissé nekkatul coach bu sunu équipe nationa bu football contrat ba dog nañu ko décision la bu nga xam ne rawatina ci compétition qualificative yi ñu nga jëm ci kan euh, bi jeexale bi la jotaay xibaar li yéene kaay xëy fësal ak Mantoulaye Thioub ndooy faram-fàcce Guinness gis lay doon